spectateurs internautes yu Public SN nous na leen bu baax di rafetu li nga xamante ne noonu ngeen toppee seen télévision bi di euh, Public SN alors comme d'habitude rek ñu ñëw dafa leen benn euh, reportage euh, ci li nga xamante ne moo actualité yu gën a fës ñu waxee ko li nga xamante xam ngeen ni démb ñii di soxnay ak Ousmane Sonko dañu génnoon def ben entretien ak suñu ben natango di Pape Ali Niaw donc joxé fa ay déclaration yu bari donc ñu ñëw rek jël def ben reportage ben micro trottoir comme ni mu ko rek dem taataat euh, li nga xamante modi di xalaatu askan wi ci li di situation bi nga xamante Ousmane Sonko mo ngi dund jamono ji waye tamit li nga xamante modi gennu ko génn euh, di soxna yu Ousmane Sonko démb fofé ci Dakar euh, matin donc limay def rek moy damay jéem a ak ki nga xamante modi sama caméraman ñu dem recueillir quelques impressions ci ñi nga xamante modi Sénégalais man mom affaire bi mom dama ci ñaawlu trop. parce que fu mu ne nii dëkk bi moom mooy loolu comme ni xal soxna soosu wax rek soxna Ousmane Sonko yi politique jarul yenn yi waaw ñun moom damaa bëgg fu mu ne nii comme ñoom génn nañu ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoom waa ci jabar Ousmane Sonko yi en tant que oppos opposant bi ñu jàpp noonu ma ñu ngi koy rafetlu di ñaan président bi di ñaan soxnaam bi yëpp première dame comme ñooñu dem nañu ba ñaan ñun tamit en tant que citoyen sénégalais patriote yi ñu koy ñaawlu mu delloo si xelam libéré leen libéré ñëpp ñu ñu jàppandoor yaay yi paa yi ak xale yi surtout xale yi xam nga xale yi mooy loolu xale yi ñoom lu ñu bëgg rek lu ñu bëgg ci sénégal mais bu bu ñu sañoon du ñu yàq fi dara waaw man tamit en tant que yaay man tamit maa ngi rafetlu di ko ñaan di ko sakku mu dimbali ñu libéré ñëpp waaw ñu ñu jàppoon ci affaire manifestation yëpp. xam ne lu daal Ousmane Sonko rek ñàkk a mosuma sàcc laa ba nga ko waxee ba léegi ci la am problème problème bi yëpp mosuma sàcc moom moo problème bi am nañ ci naqar lool fu naqar romb fu naqar bi yegg yegg na fa moom di ko di ko métti ne lu ko dal suñu bokkum jullit la te mi la doon xeexal ba léegi fekk xeexlu boppam Ousmane Sonko su ay milliards bu yàgg. waaye bëggul milliard réew mi la bëgg a génne ci kàmb gi mu nekk parce que réew mi fi ne dafa nekk ci kàmb fi ne dara moo doxut lu dox ci réew laaj naa ko lépp a taxaw tant que Ousmane mu ngi ci kaso gi léppay léppay taxaw ah jabaram yi dañoo jaaxle parce que liñ ko def euh, kuñ ko defoon sa sa mbokk yi nga jaaxle même boo ko defoon doomu Amadou Sall doomu Macky Sall boo ko defoon papaam papaam papaam jaaxle Ousmane Sonko doom la dafa am yaay dafa am day dafa am ay mbokk dëkk ci réew mi juddoo fi yaroo fi bokk ci réew mi nañ ko bàyyi comme comme ni ñu bàyyi nit ñi da war a présenté comme ni ñu war a présenté woo oh. dafut dara la dafut rien. nit ñi jaaxle nañu trop dëkk bi fi mu ne nii metti na trop askan wi sonn nañu njiitam réew nag rek njiitam réew day jël day jëlale doo topp ba mu jeex ah wax dëgg yàlla nag Sonko li ko dal askan wi bu nu waxalee yàlla ñëpp askanu Sénégal ñëpp la métti amu ku mu neex. wax dëgg yàlla ndax euh, niñ ko toppee ërtal bi dafa metti wax dëgg yàlla metti na lool Sonko nit la comme nit ñëpp te it yàlla dafa def askan wi ñoo ko bëggal seen bopp ku waxal yàlla xam ne yàlla na ma yàlla wàll Ablaye Wade bi muy nekk opposant aman nay nit mais lii yàlla may Ousmane Sonko Ablaye Wade lim doon am am am doole yàlla mayu ko woon sax Ablaye Wade grève de la faim bi yàlla na ma yàlla baal bu demee ba def grève de la faim dafa sonn daa gisatut lu mu xam nit nag euh, yàlla na ma yàlla baal am na loo xamante ne ni bu la ko bëggee teg boo demee ba jaaxle ba xamatoo looy def grève grève de la faim moom dernière chose la da ngay dem ba jaaxle rek doo koo def boo amoon beneen pexe rek du def grève de la faim ndax grève de la faim ñëpp xam ne baaxul dafa muy jëm ah yalla yalla na ci yalla def sutura rek leneel bañ ci am ndax leneel bu ci bañé am ah askanu sénégal ñëpp dinañ am gatché baram yi tay dama dégg ci journal yi rek demb ñuy wax ne jabaram yi dañ leen ki ñu ngi doon ñaan comme ça mais ni ñuy ñaané ni ni jabaram yi dañoo jaaxlé di wax seen bopp askanu sénégal yi ñëpp jaaxlé rek di wax seen bopp bu mané ngir yalla ki fi nekk njiitam réew bu manee bàyyi lii mu sedd si jàmm ak salaam mu bàyyi ko mu sedd si jàmm ak salaam ndax sedd gi moom mooy tax Sénégal jëm kanam ndax Sénégal fi mante ne nii dañu sonn de Sénégal yëpp a sonn fi mante ne li waaye war a sóoli nag bu def bu dawalee ne mu bàyyi askan wi jóge si situation yi ñu nekk dina sant yàlla bu baax. mbokk yi ah liñ la leen indil rek ci lu mel ni reportage donc dem wala micro trottoir dem seeti ñi nga xamante ne moo di askan wi. Eh, ngir wax ci li nga xamante ne mooy di situation bii di Ousmane Sonko eh, bi nga xamante ne moom la nekk ci jamono ji ndax démb gis ngeen que ni ñi nga xamante ne moo di ay soxnam dañu génn def benn entretien ngir wax ci situation bi muy dund foofee ci eh, prison bi mu nekk situation bi nga xamante ne ñoom li ñu sàkku njiitu réew rek mooy à que ñu libéré ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko ak yeneen député yi donc ñu demoon rek jël kaddu ñi nga xamante ne moo di askan wi naka lañ koy gisee li nga xamante ne moo di sortie boobu ak ñi nga xamante ne moo di situation Ousmane Sonko bi muy dumb jamono